et vous voulez une gérance efficace et transparente de vos biens immobiliers. Villa, appartement, maison, bureau, commerce, immeuble. Et vous voulez faire louer à des conditions de transparence, d'hygiène et de sécurité. N'attendez plus. Contactez vite l'agence Techno Habitat, votre agence de gérance immobilière qui vous propose des services de gestion locative rapide, rigoureuse et transparente. L'agence Techno Habitat vous assure en même temps une totale sérénité, où que vous soyez. L'agence Techno Habitat se trouve à la cité Mermoz, face ancienne piste, villa numéro 89. Contact 77 394 73 agence techno habitat la clé du bien-être. dañ leen loolu mooy yoon comme man maa leen bëgg a gis waxtaan ak ñoom ma fekk leen seen siège sax mooy gën comme ça ñu mën a dajale ñoom it ñu war a dajale ñëpp donc bu ma demee ils m'ont reçu à leur représentant tous les marchés de Ziguinchor ñu nga ko woon les cinq marchés. ñu toog waxtaan ba ñuy dem la ma kenn ci délégation bi ne ma mais président siège u Unacois dafa jàkkaarloog këru Doudou Ka ma ne ko wax ah, mais après siège u Unacois kay su doon ci biir këru Doudou Ka sax te waa Unacois convié ba fa ñu war a waxtaan war naa fa mën a dem waxtaan ak ñoom waxuma laa nag loo xam ne ne nañ dañoo jàkkaarloo man xaw ma fu dul ko dëkk ci biir Ziguinchor ça ne m'a jamais intéressé donc mais je suis un citoyen sénégalais amul une portion du territoire national sénégalais qui me soit euh, interdit amut fu ne lay dem ci Sénégal di Fouta à Tambacounda de Dakar à donc su ma ñëwee ba fii Ziguinchor nag ñu ne ma koñ bi waroo fi dugg parce que diwoo fi dëkk def naa loolu euh, xel mënu ko nangu bis bu ne ma bu buntu kër Macky Sall Mermoz te ñemewu ma kaa tere ñemewu ko tere benn Sénégalais donc bi ñu demee ñu recevoir ñu ci seen immeuble bi au quatrième étage commencé waxtaan bi ci lañu ñu dégg coow li commencé bëri ci suuf ñu jóg daal di tëj fenêtre yi ak yooyu un des éléments la sécurité ñëw ne ma waa ji ci boppam ñëw na ba fii ak katkatam demaat jëli ay nit ñëw ñu woo ay nit ñu bëri ñu ngi ci suuf ne dañuy forcer dugg ci immeuble parce que il n'est pas question ngeen tenir fii une réunion alors la sécurité a fait son travail on a continué notre réunion la ca des ñëpp gis nañ parce que les images parlent d'elles-mêmes euh, yooxu nañu saaga nañu agressé nañu jam nañu ay nit paaka lu ne def nañu hier bu dul woon professionnalisme ak sang-froid bi nga xam ne c'est moi sécurité def nañ ko mu mënoon na rot di xew démb parce que li ñu gis loolu mooy li gën a tuuti ci li ñu gis ñun et nous avons suffisamment les moyens de répliquer bu dul woon retenu ak sang-froid wu ma sécurité démb bakkan dina fa kon ñu ngi sant yàlla bi mu amee waaye ñoom gaañ nañu ay nit xam nga li neex ci mbir mu mooy saa suñ lañ naan <coughs> son day victimisé wu malgré les images des vidéos wala ñu ne moom moo attaqué mais bi ñu commencé politique ba léegi mosoo dégg ni waa Pastef gaañ nañu nit wala rey nañu nit waaye dinaa étaler ça bu ci kanamee tuuti la longue liste des attaques dont on a fait l'objet Pastef la ñuy gaañ Pastef la ñuy rey Pastef la ñuy emprisonné mais mosoo dégg mu ne jóge na ci ñeneen loolu rek doy na ci réponse ni attaque mosul jóge ci Pastef te yàlla xam ne ni ci jamono ji ñu toll amul parti bu ñu ëpp capacité pour attaquer Ferman fii Sénégal amul donc li xew démb ñu ngi koy déplorer commencé ci déplorer attitude police sénégalaise réew mi amul police police politique la am police à la solde de Macky la ñu koy déplorer ndax bi coow li commencé waa UNACOIS dañu jël seen téléphone woo police devant moi woo police ne situation am na fii ñëw leen Ziguinchor si c'est pas une grande ville embouteillage amul amul benn problème mais li gën a yéeme mooy police ñëw na ndax bi ñuy génn ñun ñu ngi leen fekk ñu taxaw ci kaw tali bi kaw tali marché bu kon dugguñu sax ci koñ bi andi benn pick-up où il y avait deux policiers c'est déplorable cette attitude de la police nationale je les comme complices de ce qui s'est passé su bakkan ratoon ils auraient une responsabilité à quoi ça sert ñuy fay ay policiers ay salaires su dee situation élémentaire bu amee mënuñoo ñëw interposer wu pour que yenn extrémités yi ñu bañ cee egg c'est une attitude irresponsable c'est pas une attitude professionnel te police sénégalaise tàmm na ko police sénégalaise day sottale Macky fu problème am entre opposition et pouvoir police Macky Sall day dem di sotle l'opposition la le pouvoir et ça c'est inadmissible il faut que ça finisse parce que Macky Sall fayul police suñu suñu impôt ñun ñii ñëpp mooy fay police je n'indexe pas les policiers individuellement xam naa ni léeg-léeg ñoom ñooñu ñooñuy gën a am lu leen naqari mais ñi leen di jox ay ordre laay waxal wax ma les policiers individuellement kenn gënu leen nekk patriote te xam naa ni léeg-léeg ñoom ñooy gën a am leen naqari mais c'est un corps <coughs> paramilitaire suñ leen def leen ñu def suñ leen nee toog leen ñu toog di déplorer li fi xew parce que politique du lii jàpp naa ni Casamance 40 ans yi weesu Casamance souffrance bi fi am doy na sëkk 40 ans yi fi weesu li fi tuuru ci deret li fi faatu ci bakkan Casamance soxlaatul lii nous sommes en politique nous sommes des adversaires mais bu lépp jeexee fii la ñuy daje sénateur mi ngi koy wax léegi Ziguinchor tout le monde presque est parent d'une manière ou d'une autre lii xew démb c'est venu d'un acteur politique mineur yàgg na yàgg na xam nga li tubaab di wax complexe d'infériorité yàgg na di wax ci Ousmane Sonko di yónni ay nit ñuy saaga Ousmane Sonko di bind lu ci Ousmane Sonko bu bindloo sax bu joxee site yi ba pare day fay ne leen désactiver commentaire yi <laughs> loolu yàgg na koo def c'est un acteur politique mineur boo xam ne propre bureau de vote am élection yi passé duma nañ ko fa ba ngoon si da doon jooy kooku man duma moroomam bàyyam ci politique mooy sama nawle baayam ci politique ñu koy wax Macky Sall man mooy sama visa bi donc bu dee dafa foog ni yi muy def nii dina yokk valeur ci Macky Sall comme Macky la bëgg ba tax lu mu mënul am ci politique ci terrain mu am ko feneen wala bu foogee ni Ousmane Sonko mooy doon échelon pour mu monter day nax boppam man duma moroomam ci politique je ne le dis pas avec arrogance mais li terrain bi wone laay wax bokkuñu ay ambition defe naa li gën a rëy ci réewam mooy être maire de Ziguinchor qu'il ne sera jamais bu sew de yàlla kon yii ñuy def nii la Casamance n'en pas besoin te lu mel nii doo mus a gis mu jóge ci l'honorable député maire Abdoulaye Baldé gëw ma ko doo mës a gis mu jóge ci tonton Robert Sagna gëw ma ko les dernières années toutes les scènes de violence politique mi ngi jóge ci benn wala ñaari acteurs politiques te moom ci la bokk maa ngi fàttaliku 2017 élection législative yi j'étais à l'hôpital parce que Djibi Gueye Ndiaye ma àndaloon bi muy ñibbi def accident toog wala la ko bi damm ñu delloosi ko ba ñu demee songu le meeting de a à à Dayabé dafa amoon ci blessé bi ñuy ñëw di hôpital di andi blessé c'était devant moi politique du dem dajale xaalis boo xam ne l'origine est douteuse douteuse dem recruter ay nervi bi jële leen dakaar andi leen fii foog ni loolu mun na la may baat ci politique légitimité bu la ko yàlla mayul da koy da ngay xam ni lii la yàlla def parce que yàlla rek mooy may mais nekk fii saaga nit ñi attaqué nit loolu du politique la bataille de Ziguinchor se fera sur des idées sur des programmes sur des projets mais pas de cette manière-là donc ñaareel bi mooy Sénégal ci boppam li mu jot a dund jàpp naa ni le Sénégal a fait un très lourd ci ay comportement yu mel nii indépendance ba tey te bi ci mujje mooy li fi xew au mois de mars nga xam ne fukki bakkan ak ñeent rot na ci ba tey ji ñuy wax nii Macky Sall pëndal bi mu da pëndal naan ay commission d'enquête ak nangam-nangam bëgg a suul dossier te du mu sa suulu parce que tôt ou tard les responsabilités seront situées dañuy rey dinañ dem kaso un lourd crime ci li xew rek ci mois de mars bi kon yii soxlaatuñu ko ci politique politique ku wóolu sa bopp wóolu sa xam-xam am say idée am say pro projet ak ay programme ñëwal gaaral ko askan wi ñu bàyyi nag le peuple souverainement mu seet ku ko doy mu ne kii laa tànn kii nag peuple bi tànn dafa noppi bu yàgg donc la fii débat moo fi amut may wax ni Pastef nag bi mu juddoo ba léegi Pastef mooy gone goo xam ne dafa judd rek dox may ñu ko fu mu jàngee so may ko fu mu jàngee dox dafa judd rek ñu ne tey ñu faagaagal lu ne jaar na fi dàq nañ ñu seen liggéey attaqué nañ ñu ñuy saaga ñu ngi ne daj nañ ko su ma doon wax rek la longue liste ma fàttali ni le 6 octobre 2018 dañoo pare meeting ci la ñu assassiné Mariama Sagna ba tey jii la justice ne peut pas faire la lumière sur ce dossier ma nga bàyyi ñetti doom yu ndaw a ndaw ndaw ba tey jii. ñun ñoo jël en lépp lu jëm ci seen njàng ak seeni soxla ba léegi justice waxul ci loolu te nee nañu jàpp nañu ci rey loolu la ñu wax ba léegi justice àdduwu ci assassinat dans des conditions xam ne décence mayu ñu wax ko fii ñu doxati tuuti fàttaliku ngeen li fi xewoon ci parrainage yi nga xam ne booba suñu gendarmerie ci boppam lañu ñu utiliser ne leen dem leen kër yaayu Ousmane Sonko nangu fiche de parrainage lan moo gën a ñaaw loolu ci république un corps républicain ñu jël gendarme ne ko yëpp demal maître Diagne ñuy toog di sama avocat boobu dama déposé woon plainte moo topp dossier bi topp dossier bi topp dossier ba ñu condamné gendarme ba ko defoon waroon nañu continuer parce que ki ko jox ordre la ñu waroon demoon parce que moom dañ ko def exécutant kese la waaye suul nañu dossier boobu te bi mu amee dégg ngeen ñoom ñëpp ñu yokku ki newoon ministre de l'intérieur moo njëkk a dem ci télé yeeg rajo yi ne voilà victimisation dara amu ko ci loo xam ne ñëpp fekke woon nañu ñu doxaat tuuti 23 janvier 2019 ñu attaqué suñu siège Yoff gaañ fa ay xale yi fa nekkoon daal di saccagé télévision chaise du fa naw jëf ñu ba léegi enquête amul ci loolu est-ce que mos ngeen dégg nii ay militants parce que dem nañu attaquer le siège de quelqu'un wala le meeting de quelqu'un wala l'activité de quelqu'un amagul fii Sénégal la violence vient toujours d'un seul et même côté ñu weesu loolu février yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku bi ñuy attaqué sama convoi à Aéré Lao ay jaasi ay paaka lu ne am fa en pleine campagne ñu jóge foofu ñu attaqué waat suñu convoi à Fatick gaañ fa ay nit gaañ yu métti ba tey ji ma wax yow am na ñoo xam ne ñu ngi jógee Fatick di ñëw faju Dakar ay rééducation 2019 te ñi ko def ñoom ñëpp xam nañ leen fu nekk attaque bi fa am ministre bi ko def xam nañ waaye damay wax toujours ni sàcc sàcc bu dul raw jarul yàq nelaw day <laughs> leen rek ñuy tëb dal fii Sénégal la te Sénégal du jeex commencé wul tey dal jeex tey ki ko def ministre bi yónnee pour ne attaqué leen bi yi ma leen wax ni yëpp bu nekk xam nañ ban ministre wala ban directeur d' agence moo yónnee jënd jaas ya jënd xeere nekk joxe xeere na leen dem leen attaqué Sonko et Sonko moom ñu jógee foofu ñu ñëw ne def nañu loolu lépp sottiwul te waa ji mënuñu koo jaare fenn fenn fenn fenn foo laal c'est ndax ñun ñu ngi sant yàlla Pastef mooy parti boo xam ne dafa neex a nekk waa Pastef ñu ci bëri ay hauts fonctionnaires lañu nekk ci domaine yu sensible fu leen neex ci télé ñu taxaw wax te kenn mënu leen dara parce que dañoo jub mosuñoo sàcc mosuñoo jël luñu ñu moomul mosuñu leen corrompre mosuñoo corrompre moo tax ñu nekk à l'aise bëri nañu ànd ak Macky Sall di fonctionnaire bis bu ñu critiqué woon Macky dugg du suba ñu génne leen dossier kaso lañ jëm li ëpp sax ci nekk fonctionnaire ànd ak Macky ku ci ne on oh, ñu génne la dossier seen jëf wala dossier nag wala dossier IGE wala dossier wala dossier moo tax ñu dem seen génn dem toog ci Macky Sall bi ñu gisee ni loolu yépp nag amuñu ko la ñu ne kii nag buñ ko gaawul dee te ñu ngi dëgmal 2014 musiba dina am 2024 musiba dina am ci ñoom ñu ne kon nañ ko pexeel daal di def seet mascarade sa complot boo xam ne amul ku ku mu réer àdduna lii complot la bañ ca demee nag ba ci biir parce que ñun ay nitu jàmm lañ nee naa mosuñoo attaqué mosuñoo dóor waaye loolu tekkiwul ne ay yàqu sañu de yàgg naa wax ni man duma koo xam ne suñ la mbéjee ci lex bi nga joxe lex bëri politique dafay am fu muy toll nag rokki mi rokki la bi ñu demee ba bëgg a ëppal gis nañ ñu gis mooy li fi xew mois de mars nga xam ne moom Macky Sall dafa demoon tëju ñemewul woon lu dul diggante Mermoz ak Palais ministre am yeeg directeur général moom yëpp yor làmmeñ di rëy di rëy làmmeñ nekk ci télé yi fan la ñu ne woon mars am na ñu génnoon sax réew mi dégg naa dem Dubaï ak feneen ak feneen man mii ñu yónnee ci man naan wax leen ko man bokk ma ci mbir mi defuma ko dara bu gaar bi ñëw taal sama kër kenn xamul nu mu toll ci ay ministre ay directeur ay kilifa waaye bi mbir mi jeexee gis nga leen après la pluie tous les cafards sortent loolee nag amoon dañ leen bëgg wax ne mi ngi fi ba tey te dinaa ci dellu si jàmm ñaar a koy dox ñun am nañu limit am nañu lu ñu mën a nangu que ñuy xëy su ba ngoon jot nekk ci tele yi di ñu saaga dañoo yor njaboot di ñu saaga di wax lu la ci ñun ça passe encore parce que yonent yi sax saaga lañ leen te loolu du takk te plus ñu koy def. plus muy yokk suñu aura ak suñu sympathie ci peuple que ñu attaqué ñu attaqué waat ñu attaqué waat ñu ñu ne ñun ay républicain lañu fa ñu war a déposer plainte ñu dem déposer fa plainte donte xam nañ du mujj fenn ba léegi loolu jàll na waaye keroog bu ñu jógee ne nag parce que Macky Sall dañ ko bàyyi ci li mu nekkee fii Sénégal Macky Sall donnul Sénégal ci bàyyam Macky Sall jëndul Sénégal moomul Sénégal Abdou Diouf nekk na fi ba jóge ci sama xam-xam bu gàtt musul tere adversaire bu nekk candidat daan na am problème ak Ablaye Wade ba ñu jàpp Ablaye Wade tëj waaye balaa élection mu génne Ablaye Wade bàyyi ko mu compétir tranquillement ñaata la Ablaye Wade dem ka mais balaa élection génn nañ ko te mosuñu koo privé de droit civique Ablaye nekk na fi ba jóge 2007 kan moo ne woon sa plus grave menace doon liggéey sa fekk jàpp ko fi en 2005 mais balaa 2007 bàyyi na ko mu nekk candidat en sachant que menace bi gën a rëy foofu la jóge guléet ci Sénégal Macky ñëw ne diw ak diw ak diw du nekk candidat ñu seetaan ko ci nag parce que loolu ça interpelle le peuple ñu seetaan ko si ba mu am sañ-sañu écarte candidat 2019 lu mu def pourquoi candidat yi gënoon a fës ci opposition ci jamono jooju mu écarter leen ñëpp seetaan ko loolu moo fi doon ci Sénégal bu yaakaaree ni par l'instrumentalisation d'une justice Et je continue à lancer un appel à la justice sénégalaise. Cette justice n'est plus crédible aux yeux des Sénégalais. dem média bi mu ñëwee fii dafa ma ne bàyyi ma ma intenté ne ko jaru ko jaru ko parce que du mujj fenn moi je ne crois pas en cette justice dès qu'un dossier implique des acteurs politiques de la mouvance présidentielle je le dis haut et fort a pas de justice au Sénégal ci plan boobu ma ne ko jaru ko et je vous dirai après pourquoi jaru ko kon bi ñu defee seen mascarade boobu objectif bi ñu ci amoon échoué ndax seen objectif mooy woon dans les la première semaine na Ousmane Sonko tëdd kaso ko defee nag ñu déroulé tey li foofu mu mujjee ñemewul sax jël décret pour nommer un juge d'instruction patate chaude bu nekk seen loxo man maa leen di bind leen gaaw nañ ci dossier bi ñemeetuñu ko sax te fu muy mujjee nag liy tooy dina jóge fu ñu ko foogewuloon tàppale yoru réew liggéey moo ko yor suñ la falee demal liggéey boo defee résultat soxla woo campagne pour am un deuxième mandat soxla woo éliminer adversaire parce que un homme politique bu ñu la joxee nguur ton adversaire c'est pas l'opposition. C'est le peuple qui t'a élu. Si le peuple est satisfait de toi, dina la jox deuxième man boo paree deuxième mandat ñu xam ni jeex na nga ne maa ngi dem toogi sax peuple bi mooy jóg ne dañoo bëgg nga continuer waaye nekk ci tappale suba ngoon sàcc alalu réew séddoo ko complot contre les adversaires politiques foog ni loolu moo tax nga war a am dara on n'a jamais eu président aussi populaire mosul am mosul am laaj yi léeg nga laaj léegi Sénégal buy dem fenn sax day recruter ay nervi yu koy jiitu parce que bëggul ku ko yóbbu ça c'est le summum de l'impopularité même Diouf bi muy perte bi muy perte dëgg dëgg dëgg musul jël ay nervi pour ñu ñu ñu pere nit ñi yóbbu ko. police a ngi fi gendarmerie ngi fi il sorte ñu encadré ko mu dem def lu muy def kon dama bëgg a fàttali Macky Sall parce que man nee naa leen l'acteur politique mineur insignifiant di def lii man du sama nawle moo tax waxuma ak moom dama bëgg a fàttali Macky Sall ne ko nguur day jeex te bu sam jeex na question de jour la léegi dañ koy compter nguur dafay jeex na fàttaliku IBK fii Mali na fàttaliku Idriss bi na fàttaliku Alpha Condé na fàttaliku keneen mais ñooñu mooy les mauvais exemples sax waaye na fàttaliku ñu nga xam ne def nañu seen nguur bu jeex ñu joxe pouvoir bi barki dem ro xew Niger def na deux mandats ne du ma du ma laajaat troisième mandat ana mu ngi Niger toog soxlawul dem tëdd France Jerry Rawlings musul génn Ghana ba ni muy dee da daan génn di dox ay courses am euh, soxlawul sax équipe de sécurité fu mu romb Ghana yi nuyu ko loolu mooy ndam ci nguur waaye damay ngoy ci nguur te defoo fi dara lu baax loolu ci ñàkk bopp la bokk donc na delloo si xelam te lii. man moom laa jël comme unique et seul responsable il est le seul garant de la sécurité de tous les Sénégalais ndax moom lañu ñu jox suñu budget pour cela lii xew ak lu mun a xewati responsabilité am la et je prends l'opinion nationale et internationale à témoin maa ngi woo it kilifa diine yi commencé ko ci kilifa diine Casamance comme Casamance saa nekk suñu imaam yi suñu évêques yi suñu euh, kilifa diine coutumier yi maa ngi leen di oo d'abord ñoom maa ngi woo kilifa diine réew mi yépp xalif généraux yi eglise bi ñépp parce que dafa am fu fitna di toll ñoom bokk nañ ci ñu ciy gën a sonn li fi li fi li fi xew xewee fii ci mois de mars ñu ñëpp gis nañ ni kilifa diine yi amoon nañ leen métti trop parce que ñun ñëpp seen njaboot lañ ñu ngi leen di woo parce que lay raam ci ñàkk ba la jëm te tubaab danaan mieux vaut prévenir que guérir dóor benn yoon nga bàyyi mu romb mën nañ ko tobos nga bàyyi mu romb mën nañ ko waaye mën na rey ñetteel ah li ñuy wax daal te dañuy wax toujours ni senegale xamul ku dóor ku fayu la xam may wax kilifa diine yi nañu àddu bañ a toog ba fitna gi egg fenn ñu wax mais dañuy teel a wax pour anticiper ña wax sax nag ndax ñun ñëpp dégg nañ màggal Touba bi rek di xalif général des mourides wax mooy njëkk a woote pour ñu am élection bu transparent bu dal te leer nañu loolu nag buñ ko waxee ku am dégg-dégg xam nga ni xam nga kuñ ko wax parce que opposition organisé wul élection opposition organisé wul élection donc suñu nee nañu fexe ba élection yi ñu organiser ko ci ni mu gën a jubee ni mu gën a rafet ak ni mu gën a dalee kii mu yor organisation élection yi lañu waxal moo yor administration liy organiser élection yi moom moo yor police ak gendarmerie moo yor armée donc moom responsabilité am ma wax nag ni moo weesoo appel boobu ma lancé kilifa diine yépp dinaa wax ni lii am démb dootul am fii li am démb dootul am fii parce que ki ko def olof day wax ni bukki bu yabee waxambaane ci doxit ka la fii Ziguinchor fii Ziguinchor ku am fit ak sañ-sañu jóg ne ma ngay dem attaqué ci Ousmane Sonko rek defe naa ci xaru la bokk mën naa ne fépp ci Sénégal la waaye rawatina fii Ziguinchor may wax nag ni lii du amati avertissement bu amatee gëm naa ni ku ko def dina bëgg a ñëw Ziguinchor dootu ko ñeme dootu fi amati démb ba léegi maa ngi calmé maa ngi téye nit ñi ndax suñu leen bàyyiwul gëm naa ni musiba am na léegi may wax bépp acteur politique u Ziguinchor man fii awma fi sansen fii laa yaru fii laa jàngi amul koñ bu ma xamul fii amul yoon bu ma xamul fii te fu ne laay jaar nag bu ci kanamee tuuti dinaa génn dem à la rencontre des populations de Ziguinchor te du amul fu ma dul dem bu soobee yàlla te fu ma dem population yëpp dinañ génn keneen ku am ay nerf bi di attaqué na génn ba xam ñaata nit koy génn ne ko nii lañ parce que mbir mi foofu la may wax nag ni c'est la dernière fois lii am bu amatee nu dégation toute responsabilité de ce advenir dernière fois ñun provocation taxu ñoo jóg amuñu temps boobu ku yàlla may lim la may fii soxlawoo provoqué kenn soxlawuñu ko waaye fu ñu war a am réunion dinañ fa dem réunion fu ñu war a am rencontre dañ fa dem rencontre loolu moom nañ ko leeral tey may woo ñëpp nag ñu delloo si seen xel ndax jàmm ci la lépp xaj nit dina taal fitna ba pare fitna ba këpp ci boppam. jàmm ci la lépp xaj ay élections la ñuy dëgmal ce sera ce seront des élections entre des fils et des filles du Sénégal ce seront des élections entre des fils et des filles de la Casamance nañ ci dugg ci jàmm kenn ku ne wax xalaatam présenter projet am askan wi tànn ñu delluwaat joxante liggéey loxo liggéey pour le développement de la région